safar ku ne 18 safar ay grand magal de Touba grand magal de Touba ngeen ciy gis pèlerins yu takku ay nit ñu mucc ayib ba nga yéemu lool. ba tax na groupe seen ne duñ leen ci mës a bàyyi ngeen di wéet dinañ ànd ak yéen ci ay reportage ànd ak yéen ci ay plateau spécial ànd ak yéen ci li nga xamante ni moo di exposition di leen defal ay plateau spécial di leen won li nga xamante ni loolu mooy ziar yi di leen won berndeel te ku ne Touba xam ne fii la berndeel fekk baax bëgg jot suñuy ndaw wala nga bëgg am lu leer naññ mën nga woté ci numéro yi 33 820 86 34 wala nga daldi di ci numéro bi 77 518 18 11 bo ci woté di nga jot ñi tégg la ci yoon bu muccu ayib groupe sen kàddu ñoo ngi leen di ñaanal màggalum jàmm